actualité euh, muy euh, convocation et arrestation euh, d'anciens dirigeants du régime précédent sont imminentes Euh, ginnaaw euh, post bi nga xam ne Pape def na ko ci euh, page Facebook ci nataal ba ñu ngi si gis li nga xam ne nag moo di yile rapport bokk na ci rapport Cour des comptes OFNAC ak li nga xam ne nag moo di IGE waaye aussi président Diomaye après installation am sàkku woon na si li nga xam ne ñoom ñoo di IGE ñu dem wàcc si li nga xam nag moo di ci yenn bërëb yi nu saytu bu baax a baax anam bi nga xam ne moom na ko yore woon si yooyu la bërëb mën nañ si tudd lii di LONASE lii di conseil exécutif des transports urbains durables ñu gën ko xam ci CETUD SAR société africaine de euh, raffinage daanaka yooyu la saytu euh, mat na sëkk ba nu fas yéene jébbal euh, yooyu la rapport ki nga xam ne nag moom moo di le procureur de la république hmm. alors ci ay xibaar aussi ñu ngi nuy xamal ni fële ca Cap Manuel ak Rëbës daanaka am na lu ñu fay yeesalaat <coughs> loolu gin tey ji bu ñu koy def dañuy fàttaliku ba ñuy teg loxo ki nga xam ne nag moo di Khalifa Ababacar Sall ak kii di Karim Meïssa Wade lu doon yeesalaate li nga xam ne moo di yooyu ay convocation dina am ak li nga xam ne nag moo di arrestation ginnaaw euh, ba euh, Pape Alé Niang defee li nga xam ne nag moo di poste alors nan nan nga mën jàngatee boobule mbir yeesalaat bi. Hmm. waaw yeesalaat bi moom jàpp naa ne juste pour liggéey la rek. parce hmm. que foofu yëpp am na am na am na am na ay kilifa yu yees yoo xamante nii Euh, yóbbu nañ leen fa. Mhm. Mm, jàpp naa ne rek liggéey la boo xamante ni dañ ko fekk war ko continuer parce que suñu suñu suñu suñu suñ suñu kaso yi tamit. Mhm. Euh, lu waay mën a wax itam xam ne am na liggéey yu bari yoo xamante ni. Mhm. warees nañ ko ci amal. parce que euh, na mu méngoo wala boog itam nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko liggéeyee dafa méngoowul ak respecté li nga xamante ni moo di àq ak yelleefu doomu aadama. te des fois comme dafay faral di ëpp lafay nekk ci nit maanaam day ëpp lafa waroon di nekk. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla nag dina baax itam ñu gën ko ñoŋal ba nga xamante ni ña fay dem. Mhm. danañ gën a nekk ci li nga xamante ni moo di ak jàmm parce que euh, bërëb rek boo xam ne surtout dañ la fa yóbbu pour. Euh, correction lañ ko tuddee amaana. Mhm. amaana mission boobu moom nekku ci. mais nag wax dëgg yàlla kañ fa yóbbu war a a indi waa nañu mhm. xamante ni moo di moo ne war nañ fa mën a yóbbu ëllëg a ginnaaw ëllëg mhm. euh, li may ñëw itam ci côté bi nga xamante ni moom la Pape Alé Bara Niang bind noonu mooy li ñëpp di xaar la maanaam dañ ne nag des fois tàggoo bu bëri amaana. ñu bëri niñ koy niñ koy niñ koy interpréter dina dina du bokk. <laughs> Eh, des fois gan ñëw ci kër eh, bëgg ñibbi naan la maa ngi ñibbi de. di mm-hmm. tàggoo di tàggoowaat maa ngi ñibbi de. Eh, fekk amaana paas la bëgg. Mm-hmm. des fois itam gan ñëw di la tàggu di la tàgguwaat fekk amaana dafa am ñëwanti ci dem gi mu lay dem di la bàyyi yow kese ci biir kër gi waaye itam des fois itam nit di ko wax fekk amaana fa muy dem sax la bëggul a dem. Mm-hmm. bëgg rek nga fomm ko ci li nga xamante ni moo di aw yoonam bi avant que ñuy toog bokkoon na télé mooy nees la ñuy a def ba yàq ak càccu alal gi nga xamante ñi fi toogoon moom lañ leen doon jiiñ ne moom lañ fi nekkee woon mm. ñu fexe ba topp seen kaw loolu la koy def mooy justice justice bi nag bi nga xamante ni ñoom ñëw nañ liggéey bi nga xamante ni moom lañ ciy amal jàpp naa ne mooy li doolee tax ba ñu ciy communiquer di wax di waxaat di wax di waxaat le fait que Ousmane Sonko ci boppam génnoon ci avant bi bi ñuy annoncé mbale bu njëkk bi mm. que ne dinañu def opération gox euh, que képp koo xamante ni euh, lekkoon nga alalu askan bi dinañu fexe ba nga goxi ko loolu euh, jàpp naa anonce boobu rek doyoon na ci nit ñi déggoon nañu ko amaana ñu bëri itam dinañ ne soxlawul ñu ciy nekk di ñëwaat di war répété di waxaat mais nag bu dee côté Pape Alé ñaa gi ak annonce yenn yi li ma ci li ma ci li ma ci naqarlu rek wala du du sax naqarlu en cent pour cent mais li ma ciy moytuloo parce que homme politique dafa sew ay mbir. Uh-huh. maanaam bu annonce yi bëree tey bàyyeekoo ci ñoo xamante ni ay euh, kilifa lañ ci biir régime bi. Uh-huh. maanaam pour ñu politiquer dossier yi war a ubbeeku day yomb. day yomb moom dama jàpp ne maanaam lu ci baree bëri jamono bii na ci ni ci Bassirou Diomaye fay yem. Uh-huh. Ousmane Sonko yem ko ci même ñi topp ci ñoom nañ ci yem noonu. maanaam ñu bàyyi justice. moom ba nga xamante ni maanaam bis buy annoncé annonce bi duñ ci gis couleur benn benn benn benn benn direction wala boog itam couleur benn benn benn parti uh-huh. day fekk rek ne maanaam ay rapport la yoo xam ne ñoom defoon nañ leen wala boog ay corps ñoo def ay rapport uh-huh. jébbal leen ko ñu jog di ci def seen liggéey jour uh-huh. bañ koy commencé jour bañ koy def jour bañ koy arrêté yoonu kenn du ci nekk yoonu homme politique bi du ci nekk yoonu Pastef du ci nekk yoonu APR du ci nekk gëm-gëm boobu nag wala boog itam euh, gis-gis boobu sama gis-gisu bopp la euh, parce que bu Pape Alé Niang di fàttali benn fa di Kayre di fàttali benn Waly Diouf Bodian di fàttali mhm. day yomb ki nga xamante nii dafa bëgg ajouter politique ci mbir mi mu dugalal ko ci boppam parce que day wane ne kii fii la Pastef la bokk ñun lay menacer te ci justice la ñuy te pourtant démb ak barki démb ñoo doon wax ne si ñoom toogee justice duñ ko defloo duñ ko bàyyiloo moom mooy mhm. doxal boppam kon jàpp naa ne daal euh, comme justice bi wax dëgg yàlla Sénégalais yi ñu ngi ciy commencé di am yaakaar justice bi bu libre la bu moom boppam la amaana cër yi ci président amoon yëpp amatu ko ci du moo koy xëyloo du moo koy gontuloo jàpp naa ne bu xasee am justice boobu soxlaatul ngay euh, wax fi ñu hmm. jëm di ko annoncé euh, laataa justice di ci wax ba nga xamante ni moom bu koy annoncé ti daanaka dootul nekk ti information ci xelu askan bi jàpp naa ne hmm. yoon la ñu dem ci li nga xamante ni moo di euh, xaw ma nu ñu koy tuddee hmm. traque de bien mal ki xaw ma nu ñu koy mën a tuddee ñoom comme Macky Sall <laughs> comme comme Macky Sall la tuddoon xam mais ala kulli haal machine saa bu déparé li ma gëm ba gëm mooy ne ñu bëree bëri ñi nga xam ne ñoo doon xalaat a wax wala bëgg itam di waaj a génn wax dinañu noppi dem toogi parce que nag euh, kaso gii neexalul kenn de ah surtout surtout nag rëbës ak Cap Manuel waaw neexalul de ah déjà am na ku nu ku nu arrêté mi ngi rëbës chambre chambre 2 moom ngi jooy naan foofu moom waaw neexalul kenn de Amathsone Camara yaa ngi boo déggee dem bu ma dégloo Adama Fall. ma dégg ah, ni muy waxee ma dégg ni muy ñeewantalee xaw ma da koy ñeewal wala ñeewantal wala daf koy ñaawal parce Euh, ñoom ci seen biir dafa mel ni dafa am ab ab ab coxorante gu nekk seen biir. waaw moom nee na nee de dafa xaw a métti ci moom na nga ko génnee foofu yóbbu ko ci. waaw mais parce que daf ne moom wóoruwul yooyu na dañ leen war a xamal ne leen pour ñoom Pastef ay jigéen sax dañ leen doon tëj. maanaam Ahmed moom bu mu jooy bu mu caalit yegg ci jigéen ci jigéenu APR yi. Mhm. lingeer yi lingeeru APR yi <laughs> yegseeguñ ci ñoom maanaam ba léegi ci. <laughs> xo xolu Fallou Fleur daa mel ni amoon na ko de. voilà maanaam bu bu dee ci Amar rek lañ déparé. Mhm. ñoom manifesté wuñ génnuñ kaas taaluñ euh, cocktail molotov kenn déggu ko. Mhm. wax dëgg yàlla nag buñ ci bëggee booleeg di caale tiitan wax dëgg yàlla te naan nañ ma toxalee fii nañ ma génnee fii homme politique fii lañ leen daan dugal jàpp naa ne daal euh, ah. xanaa ñu ñu ñaar ñaaral ko njëkk rek ah. waaye fit ba nga xamante ni doon na ko wane ci biti hmm. fit ba nga xam ne doon na ko wane ba amoon yéenewul dem uh, ray Ousmane Sonko hmm. am yéene wu dem taali kër Ousmane Sonko jàpp naa ne fitna ba ko ci waroon a fekk bu dee ne mënoon na ko engagé ba taxoon muy woote jàpp naa ne gënul métti fitna wala boo ko tam moo gën a métti fitna bi nga xam ne moo koy fekk ci prison ba hmm. encore encore une fois euh, homme politique euh, ñoom ñëpp la surtout que ñi nga xam ne dañoo yor yenn poste de responsabilité yi doonu ñoo xamante ni ñu ñemee fitna la ñu ñemee coono lañ ñooñu nag Euh, bu amee benn justice boo xamante ni war na dëgmal seen kaw nañ fexe ba mu doon justice boo xamante ni bu set ci wàllum politique la. Hmm. boo xamante ni ku mu teg loxo. ak ku mu mën a doon responsabilité boo mënoon a hmm. ba sonn ne politique la itam sénégalais duñ ci ànd ak yow te itam APR wax dëgg yàlla jàpp ma ne wax dëgg yàlla ndimbal loolu a am hmm. doon jàpp maire Amidia te fekk ab yaay la boo xamante ni deful da amaana ab transfert wéef képp ci la ñu koy jàppee. Uh-huh. publier ñu ko maanaam wan ñu ne kii mooy force force kii ci force spéciale yi la bokk. Uh-huh. kii maanaam rebelle la kii ci ñu fa am yéene taal réew mi la. Mm-hmm. mais maanaam boo koy dégg. Uh-huh. da koy gëm nag boo ne boo déggee mère Amy Dia rek mën nga koo gëm. waaye bul ñaan yàlla ba dugg ci internet ba tàppi ba ba gis foto mère Amy maanaam kanam geeg ni mu lewetee. Mm-hmm. ni mu yërëmtaloo ñu ne la moo kii moo doon danger wu Sénégal quoi kii moo pare woon pour taal réew mi. <laughs> léegi nga mën a ki téye kooku ci kaso ak njabootam <clears throat> nekk ci biti di jooy yàgg am problème hmm. yàgg wax publiquement que nañ leen dimbale bàyyi leen seen waajur hmm. ndax feebar yu métti yoo xam ne mu am na ko ci biir kaso gi waaye tam ñoom ci seen bopp ni ñu ko soxlaa ci seen wet hmm. ñu gis bi ci jamono euh, Macky Sall jigéen boo xamante ni dafa nekk jigéenu wérul maanaam dafa ëmb ñu jàpp ko téye ko ci kaso gi ba daanaka mën nañ daanaka rek mën nañ ne ci kaso ki la amee doom ñëpp ngi koy fàttaliku bu baax ba léegi yooyu jaar-jaar yooyu boo ko amee ak benn askan. Mhm. Ah, téyel leen seen benn leader boo xamante ni ku ñu amoon yaakaar ci moom la. Mhm. nga téye ko mu nekk ci grève de la faim nekk ci grève de la fin ba nga mhm. xam ne njabootu ak boppam dañuy mujj obligé di def déclaration di saraxu ndax wóoloo di li nga xam ne moo di ak sécurité am wala boog itam ab dundam. jàpp naa ne foofu yëpp euh, APR jaar fa population bu Sénégal dina jafe lool ëllëg wala ginnaaw ëllëg ñu teg kenn loxo ci ñoom. askanu Sénégal génne di la yooxul wala bëgg itam di am benn sympathie mhm. boo xam ne dinañ ko am ci moom moo tax Adama Fall xam naa ne bi ma ko dégloo li gone yi di wax mhm. dawul suñu yaram boo dégloo dama déglu ba docteur Babacar Niang hmm. muy wax euh, ñi nga xamante ni mooy collectif gi doon wax pour que dañuy def benn pétition pour sàkku président Macky Sall ñu indi ko ci réew mi àtte ko waaw muy wax mu ne mu ne muy wax moom jàppale yi bi nga xam ne mën leen ko rapport yi nga xamante ni man def naa ko. ba ci hmm. ay rapport médical ñoo xam ne dañ leen doon sëyee ci biir kaso gi ay góor. Hmm.